baax jéggalu baax ci jataay bu yàgg bi di leen nuyu ci turu sunu kilifa gi teew sëriñ Aafiya Buso moom mi nga xamante si ni mooy jiitul daayira mu xaddamatul xidma di leen nuyu ci aw di leen ziyaara te di leen baal bu baax di nuyu mbooleem kilifa yi fi teew sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke jumaada mi ngi nii toog sëriñ Murtada Sarr ak mboolem ñi ñu àndal ak sëriñ Seexuna Mbàkke Foras moom it mu ngi nii teew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax ci turu daayira Muxaddamatul Xidma yépp di nuyu mbooleem soxna yi nga xamante si ñoo teew tey fii ci jataay bi di ziyaar bu baax soxna Njaxat moom Seex Abdul Ahad mi ngi ni toog siyaare soxna Fadja moom sëriñ Habibu moom it mi ngi toog soxna may moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa moom it ñoo ngi koy ziyaare bu baax soxna maam Faati Mbay moom sëriñ Habib moom sëriñ Fàllu moom it mi ngi nii toog ak mbooleem rek jëwrin yi nga xamante si nii ñi ngi ànd ak ñoom liggéey bi ak mbokki taalibe yi nga xamante si ni dañoo jógee ci gox yu fasante ci yeneen dëkk yoo xamante si ni yu dul Tuuba ndax am na ci ñoo xamante si ni danañ jógee ba ay gox yu fasantikoo suñu mbokk yee nekk Kébémer cey cey ak yeneen ñoo xamante si ni ñoom ñi nga ànd ak ñoom liggéey bi buñ nuyoo mbooleem ñi nga xamante si ni ñoo fi toog rek ci ay kilifa dana matale mboolem soxna yi nga xamante si ni ànd nañoo ñoom sëriñ bi kon ñu ngi lay seeral ay kàddu yoo xamante si ni seen pasteefu soxna yi amee nañ ko ci liggéey bi ci mboolem gaaw bu jot ñu ànd ko ak ñoom di taxaw set gi di taxaw lépp loo xamante si ni lu yëllawut ak barab bi la ba mel ni mu war a mel ci gaaw bu jot bañ ko tàmbalee léegi diir bu xaw a yàgg la waaye toujours seen pëstéef ak seen pas ci barab bi yow mi ànd ak ñoom sax daf leen yéem bu baax a baax ñi nga xamante si ni ñoom lañu àndal liggéey bi toujours ñoom dañu lay soññ bu baax a baax ba doo ci tàyyi benn yoon mu mel ne ku ñu wax soxna Anta tamit ak ñi mu àndal ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñoom it ñu ngi ànd ak soxna yi ci biir liggéey bi xam naa jataay bi xaw naa diire waaye ci biir loolu rek dañuy joxe kàddu yi kàddu gi ci jiitu ñu jox ko soxna Oumy fay mu jël ci kàddu soxna yi bu ko defee mu mën a soññee ak ziyaar buñ paree ñu jébbale liggéey bi yeneen kàddu yi ci topp yëpp tamit ñu jàllale ko incha allah kon soxna soxna ummi. bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyoo bu baax di siyaare sunu kilifa yi fi toogal tàmbale ko ci soxna jaxat ba ci gën a nekk ndaw siyaare soxna Faat Ja di siyaare soxna may ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi fi teew di wax ci tur seen kilifa yi di tur bu baax ak a jéggulu ci kàddu yi waaye nag ndigal jëfe rekk waaye lu ci dëng rek ñu jéggal ma ko ngir yàlla jëmi sëriñ Tuubaa ji te xam ne lu jub rek laa ci jublu woon ji siyaare bu baax a baax mboolem ku fi teew di la sant suñu borom tabaaraka wa bu baax kaay leen añ yomb na ndax ñi ko doon liggéey liggéey nañ ko ba noppi ndax fii ñu tiim tey lu toll nii ñu ne ay nitu ko fi liggéey ñoo ko fi indi kon loolu tey bu ñu demee ba toll ci lii war nañoo xam ne ñun kat li ñuy liggéey amatul solo ngàmbug bale bale rek tey liggéeyu sëriñ bi moom faayu la fu la fekk say boo nga tàmbali ci te xam ne dalay weesu ndax bu njëkkoon bi ñu ay gone daan na ñëw fi di fekk ay mag ñuy lay ñu naan looy jox sa maam tey ñun ñu di ko bale ak a minaas wëlbatiku di joxe loolu day dem ba rombuñu leneen ñëw fi loo xam ne duñ ko man kon liggéey sëñ bi lu mu la fekk rek say boo nga tàmbali ci bu baax te xam ne dangay dem ba mu romb la balam ñoo romb nag nañ ci fas yéene gën a góorgóorlu bu baax a baax di teel a ñëw di setal ah tey di ko booleeg maandute boole ko sell lii sell gi mooy boo ñëw jàpp ba set boo ñëwee jiital sa tànkum ndijoor nuyu jumaa ji ñaar ràkk ñëw na ci sa liggéey te bañ a nekk ci waxi àdduna yi te xam ne fii ñu nekkat fi def rek borom a ngi ñuy gis kon nag luñ ci góor góorgóorlu doyut ñoo ngi wax ni li ñuy wax nii nag xam naa ci turu kilifa yi lañ koy wax waaye du lu ñu man kon lu ci dëng rek nañ ñu ko jéggal te wax ne ni mag ñi day wax dëgg yàlla waruñ ñoo gën a gore ndax li liñ doon liggéey gënoon a métti lii ndax ndokk de ku ne xam ne ni sori na Kéré Mbaye ku ne xam ne ni sori na te jumaa ji li ko tabax ay boppa doon indi xeer yi boobu oto bariwut bagage itam ay boppa ko doon yenu di fi indi kon loolu yëpp tey yàlla def na mu jeex li fi des mooy daanaka dindi ci sa wërsëg joxe te wërsëg wërsëgu sëriñ Tuubaa la ndax moo ko liggéey comme moo ko liggéey nag jël ko jox ko delloo naar bi xorom si la te daanaka delloowuñ ko dara ndax amul junni génn ca ñaar téeméer amul junni génn ca téeméer loolu amul solo mag ñi dañ daan jël lenn rek jox ko sëriñ bi toog am na ci ñoo xam ne dañ daan lekk laaxub daqaal ci seen biiri kër tey takk ab sareet duñ ko ndawal ba fees di ko yót sëñ bi te loola yótuñ ko sëñ bi seen bopp lañ ko yót ndax sëñ bi moom kenn liggéey lu ko dara loolu liggéey lu ne sa bopp nga ko liggéeyal ndax loo xam ne danga ko fekk biir bàmmeel bàyyiwaat ko ci seen njaboot muy sotteeku sa kaw te du mas a dakk abadan kon kooko liggéeyal ko sa bopp nga liggéeyal kon nañ gën a taxaw baa xam ni li ñu am kat sant yàlla la ndax dëkk Touba rek doy naa sant yàlla ndax sëriñ bi kat day tànn ay dëkkandoom ku la bu la tànnee indi la fii ci dëkkam bi nga ne fi di jigéen lii la war mooy fas yéene saa yoo xëyee ne ci ndigal yi te bàyyi tere yi kon nag nañ góorgóorlu ci sunu bopp góorgóorlu ci njaboot gi bu ñu fekk ci dara lu ñuy tere te saa yu xëyee nañ ne ci ay ndigal guddi ak bëccëg dina tax kat bu ëllëgee li ñu bëgg ci njaboot gi ñu am ko li ñu bëgg fi ñu jëm ñu am ko te kenn ku ñu teg ci cos bàmmeel ñu ne sëriñ Tuubaa du sa sëriñ kat nga am loola naqari lool kenn ku ne am nga yaakaar yoo xam ne nii fii ak fa ñu jëm sëriñ Tuubaa kese la ki nga yaakaar nag war ngaa wéy ay ndigalam di bàyyi ay tereem te saa yoo xëyee loo man ci moom nga di ko jëfal guddi ak bëccëg waaye tey jii ni mbooloo mi baree bu nit woon baree kon diise daawuñu fekk waaye day néew ba nga xam ne nii day waaye tey gis nga ni mbooloo mi baree ni liggéey bi gaawee kon kenn ku nekk te jumaa ji moom mënta tee dem ngénte mënta dem tee demul céet ndax loo xam ne moom bu commencé si 5 heures wala 6 heures balaa 10 heures nga pare balaa 9 heures nga noppi foo bëgg a dem dem fa ndax kenn du fajaru dem ngénte mbaa céet kon nag nañu teel xëy di liggéey si ci jumaa ji fu ñuy dem door faa dem ndax amuñu lu ko gën gisuñu lu ko gën amul lu gën ci ñun kon nag nit li gën ci moom da koy fonk jàpp ko téye ko te yàlla tax góor góor lu baax a baax te koo gis mu di taalibe nga ke nga wax ak moom fexe mu ñëw ci liggéey bi te xam ne amuñ lenn lu liggéey bi te liggéey bi kat liggéeyal suñu bopp rek la ñoo ngi jégalu bu baax a baax nag ci wax ji kàddu yi ñu ngi ciy tuub bu baax ndax du lu ñu man xanaa lu ñu digal ñu di ko def rek te murid ndigal waaye uh, am xamuñu lenn luñ mën a wax kon ñoo ngi tub bu baax tey jégalu di siyaare ñëpp di balu ñëpp ak di baal ñëpp ab di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala boole ñu dimbale tas ñu tasale ñu tawféex sëriñ bi ñu doon alal di sëriñ bi faaw ñu gudd fan te jox bi ñu wér te jox ko sëriñ bi ko wa rahmatullah jërëjëf soxna ummi kàddu yi ñu ngi am na solo loolu kon doon wax rek di soññee ci tuuru mbooleem rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak ci biir mbooloo bi ci liggéey bi mu mel ne euh, sëriñ Moustapha Sarr mi nga xamante si ni mooy kilifa ak soxna Bintu yabal na fi sëñ Murtada mu ànd ak al imam sëriñ Samba Wade sëriñ Samba Ann euh, sëriñ Abdou Khadir tamit ñoom ñi nga xamante si ñooy kilifa ak soxna Mbayang ñoom it ñu yabal ko ci kilifteef sëriñ Seexuna moom it ñu ngi ni toog kon dañ leen jox kàddu rek bu ko defee ñoom it ñu sànni kàddu bala ñuy leeral liggéey bi sëriñ bi di mm, sant ak a ñaan bu ko defee ñu jox sëñ Abdul Xaadir Mbàkke mu waxtaan mu wax ci turu waa Soxna Mbaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay kilifaam. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa ala alihi wa sahabati ajmain mbokk wa barakaatu Eh, delluwaat di santaat yàlla suñu borom bu baax ci tawfiq gi ñu defalaat ñu teewee jataayu bu am solo bi di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi suñu sëriñ bi ñu toogal sëñ Afia ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi ñu ngi leen di siyaara ñoom ñëpp di am mbégte lool nag ci jataay bi di nuyu so soxna yi tedd yi. nga xam ne ñu ngi ci jataay bi ñëpp di leen jaajëfal ci liggéey bu am solo bi ñuy liggéeyub lislaam léegi liggéeyub Seyxuna Cheikh Ahmadul Xadim rawatina fii ngeen koy defee nag mooy bérébu suñu borom di lu am solo lool di sant bu baax eh, kilifa yépp nag rawatina waa daayira bii di muqaddamatul xidma ñoom it ci seeni taxawaay ci béréb bi nga xam ne ñoo ci wutu ñëpp ndax taxawaay bi ñu ci taxaw suñ ko taxawutoon danaa am lu sooxe kon loolu ñu de taxawe nag wuuti ña sa wuuti sa ñëpp ñaan sunu borom rek mi amuk pay sunu borom yàlla na leen fay te doon leen taxaw bu baax a baax te nangu liggéey bi ci barke Cheikh Ahmadul Xadim <coughs> xam naa kàdd yi kàddu yi sant rek la turu sëñ Seexuna bi nga xam ne mooy sunu kilifa ñun ñëpp waaye ci turu soxna Mbaye mi nga xam ne moom bi Touba ca kanam taxawee <clears throat> sëñ Fallou yàlla ko yàlla doolu yërmaane njéggal fa mu tëdd man sëñ Fallou jumaa moo ko joxoon ndigal moom soxna Mbaye nii ci mu jiite liggéey ba fee di ku jàmbaare lool ànd ak ñam ko booleel waaye liggéey bi ba mu jógee it mu ñëw sosu ci liggéey booba mu am ca même taxawaay bi amee ca taxawaay bi ca tubaay ca kanam ànd ànd <coughs> ànd ko ak ay kilifaam ko demee ne soxna Bintu moom si Habibu ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp liggéey bi di ñoo xam ne wax dëgg yàlla léeg sax dangay am ci ñoom ñewenti <coughs> fi jamono tollu xam nañ jigéen ak i war-waram ci këram ak ci njabootam waaye dañuy fàtte yooyu yëpp saabu liggéey bi jóge seen kër léeg dana danañ ab diir boo xam ne duñ fa nekk ñu ngi soññee ña ngay jël seen waxtu ak seen alal ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa loolu nag moom de su wax jar na ko waaye jar na lu ëpp loola moom sëñ Tuubaa ci liggéeyal ko kon ñi ngi sant bu baax naka noonu soxna Bintu Sarr moom it moom it wax dëgg yàlla taxawaayam ci liggéey bi eh, rafet na lool lool ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ñoo seq liggéey bi ndax liggéey bi da tudd ay tur waaye ñëpp bu ñuy sant ñëpp la sant boo tuddee soxna mbay Mbaye tudd soxna Bintu da wax ne tudd nga ñëpp ndax jàpp ne liggéey bu nekk rek mënut ñàkk am ku jiitu. waaye pay gi nag bu ñëwee ñëpp la ñuy fay ndax ku jëf rek yaa moom la nga jëf kon ñu ngi leen di sant bu baax ndax waxtu wi ñuy ñëw fii man léeg leen su ma jógee ci jàkka ja wala sax léeg-léeg bu may jàngi ma leen di romb ñu taxaw ci buntu kër soxna Mbaye di xaar oto bi ngir mu andi leen kan loolu day firndeel ne danañ teel a ñëw lool te bu ñu fi ñëwee it seen kamtalaay kàttan dañ ko def ngir sàmmanteeg war may barab bi loolu nag soxna yi ngeen gën kaa bàyyiwaat xel bu baax xam ne saa wuti lu baax seytaane dana ñëw ngir laxasu ca ngir xañ la ko waaye saa bu pas ba sellee nag ci li ngay def dana waral su du mën ci yow dara sunu borom day wax ne seytaane yi bari bari doole sama jaam ñi moom mënu ci ñoom dara jaamam mooy ñi nga xam ne dañoo am pas pas bu sell ci lépp lu ñu dugg kon kenn ku nekk bu ko ci dara bàyyi lu may na am yéen ju sell ngir liggéey Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ci barab bu tedd bii loolu mooy tax soo ñëwee. sa pas-pas boobu moo lay sàmm moo lay sàmm ci fànn yépp kon ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan yàlla rek e li ci suñu borom diggee li ci suñu borom diggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne bokk na ci tiyaaba yi nga xam ne am ah, am na yoolu saraxe mooy buub jàkka demee ci masaalik bi naan Sëñ Tuubaa ba muy tudd yi nga xam ne boo ko defee day taxaw taxawaayu sarax bokkoon na ci lii ngeen di def nii mooy di seetal bérébu sunu borom tabaaraka wa taala tey tiyaaba ji bari lool tiyaaba ji bari na lool waxuma payu ëllëg gi de waaye àdduna gi rek fii ngeen ni seetal ba ku fi ñëw boo bëggee jaamu yàlla def def ko nam nam ware te doo am dara lu lay gàllan ko sa digganteeg la la ca war loola seen taxawaay yooyee jullit yëpp ngeen ko defal kon nag ñu ngi ñaan rek suñu borom daal mu nga xam ne moo am pay yàlla leen suñu borom fayal boppam ci barke Cheikh Ahmadul Xadim di sant bu baax a baax di sant ñëpp kàddu yi waxtu yi xat na dañ ne woon rek dina ñëw seere leen ne ñii kat fee ñu bàyyi ko muy daarul xadim ak la ko wër wala sax mboog mu gën a yaatu Touba ci Touba mboolem ñi nga xam ne ci soxna Mbaye lañ aju positif bi positif bi ndax ñoom duñu xaar sax ku leen soññ yàlla xam ne ne duñu xaar sax ku leen soññ ñoom ñooy soññeen seen biir di am ci yéene joo xam ne nag kon wax dëgg yàlla dana baax sëñ bi ñu seere leen ne ñii de wax dëgg ay jàmbaar lañ xanaa ngeen ñaanal leen ñu ngi sàkk ngeen ñaanal leen yàlla rek liggéey bi daal yàlla defal leen ci ndam te mooy liñ ci yéene lépp yàlla sunu borom defal leen ko ci barke si Ahmadul Xadim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. solo lool te noonu nga ko waxee rek toujours rek noonu la ñuy jonjoo ak liggéey bi seen positif ak seen pas moom ku ne xam na ko kon xanaa di la sant bu baax a baax rek ci turu mbooloom yëpp rek di leen jaajëfal ñaan sunu borom fay leen aw yiw ci barkeb sëriñ bi di. jox kàddu gi sëriñ Mortada Sarr moom mi nga xamante si nii moo moom la sëriñ Moustapha Sarr yabal mu nekk kilifa ak soxna Bintu bu ko defee ñu jox ko kàddu gi bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Moustapha Sarr mu Cheikh Bassirou Sarr jaamu sëriñ Touba nuyoo bi ñu ngi koy jaarale ci sëriñ Afe mii fi toog di kilifa ak jataay bi ak sëriñ Cheikh Bousso nee na sëñ Moustapha nee mu ngi leen di nuyu di nuyu mboolem ñi ngeen bokkal liggéey bi ci wàllu soxna yi nuyoo bi nee na bu ko tegee ci loxol soxna Bintu saar moom mi fi nekk di rakkam dana ko teg ci loxol mboolem soxna yi fi nekk yëpp ñoom soxna Mbayang soxna Mame Fatim Mbacke ak soxna Bintu soxna kii soxna sëñ soxna Mame mbay Mbaye ñoom ñëpp rek. ak soxna Faat Dia nuyoo bi dana àgg ci ñoom nee na leen di seeral ni nag soxna si nga xamante ne bii rakkam la di soxna Bintu su ko mënaan moom mooy ñëw taxaw ko taxawaay bii ndax gis na pësteefam ci mbirum daayira bii di Muxaddamaatul Xidma ak daayira bii di tubaa ca kanam nee na moom li ko waroon lépp def na ko ca baayam de fii la toog ne soxna Bintu de cey bu doon góor waaye baatu bu doon góor googee moo ko topp ba lii muy def lépp mu man ko man mii ñu bokk wenn waajur muy sama mag xam naa ne lii muy def man mënuma ko te man maay góor muy jigéen kon nag soxna si mbooloo mi na xam ne ñu topp sa ginnaaw ñëpp sant nañ la bu baax a baax a baax ci turu mu safaa Sarr mu sëñ saar mu góor góorgóorlu rek ndax tam sëñ bi day wax ne wala tuxassis fadla benn xat xalaa bi si taxat dumin faxat fataj xalaa is rubbama uri fatan waqara maa xaaba xam man xabluhu ansura bu kenn yaakaar ne mënta am lu baax ba tax mu yaafus wala mu mel wenn melokaan te xam ne maanaam ku góor góorgóorlu rek maanaam la mag ña amoon mu néew ñu bari boo boo ko amut tamit danga leen séen te bu yàggee mën ngaa dem ba ba jot leen kon nag kàddu yi moom ñoo ngi koy gàttal rek ndax dañ fay nekk ak suñuy kilifa di suñuy waajur te jiituñu ci liggéey bi liñ ci war a wax lépp ñooñu ko gën a xam waaye dañ fay ñëwee kàddu ndigal rek muy sëriñ Moustapha ak soxna Bintu mi ñu ngi leen di seereen daal sant na naka cant boo xam ne am na tàmbaliwaay te amatul yënguwaay nee na sóori doon abadan jooju nga xamante ne bii mi ngi ko doonee ci maamam Cheikh euh, Serigne Sarr mu jële ko ci Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ yàlla bu ko ci kenn ëppale mi ngi ñaan yéen ñëpp li ngeen di liggéey ngeen dajatee ngërëmul sëñ Touba te ko am ngërëmul sëñ Touba am ngërëmul sallallahu alayhi wa sallam te am ngërëmul sallallahu alayhi wa sallam am ngërëmul yàlla maa ngi baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp wasalaamaaleykum wa mën naa jege si bu ko defee moom dafay leeral mboolem li nga xamante si nii rek ajuwal na ci liggéey bi te soxna yi war koo jébbale kon dañuy jox sëriñ Abdul Ahad bu soo moom sëriñ Cerno bu ko defee mu leeral ci doxee doxeenu mbooloo mi ngir njëkkanteeg waxtu wi bu ko defee incha allah sëriñ Pape Diop ñëw leeral liggéey bi gaaral ko sëñ bi bu ko defee sëñ bi man cee sànni kàddu yi nga xamante si mooy kàddu soññee ak siyaar bi ko defee ñu daal di mën a jawee ko asalaamaaleykum wa wa barakaatu mbokk yi ñu leen di bu baax te di leen siyaara te di leen ndokkeel Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral di nuyu kilifa jataay bi di Serigne Afia Bousso al imam nga xam ne mooy jawri di daayira Muxaddamatul Xidma ak kilifa yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam te teew fii te suñu si am di jataral lim leen jël kàddu léegi ñu mën cee ràññee sëriñ Abdul Xaadir Mbakke di ko nuyu di ko ci sëriñ Cheikhouna ak mboolem njaboot sunu kilifa boobu di nuyu tamit sëriñ Cheikhouna Mbacké mu sëriñ Saliou mu sëriñ Abdou waaye di nuyu sëriñ Murtada Sarr mu doon jël kàddu léegi te di ko ndokkeel di nuyu kilifa yi fi teew ci wàllu jigéen ñi dañ ciy jiital soxna Njaxat Mbacké bu Cheikh Abdoul Ahad euh, di ko nuyu di ko siyaara di ko sargal bu baax a baax di nuyu soxna Maymunatu Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa te di ko ndokkeel moom it te di ko siyaara rawatina jóge gi jóge ci baytullahi alharam bu yàggut di koy siyaara bu baax di ko jaajëfal di nuyu jëwri di liggéey bi soxna Bintu Sarr soxna Mbayang Jum ak mboolem ñi nga xam ne ñoo topp ci seen ginnaaw xam naa ne kàddu gi sagam kilifa gi mi ngi fi di kilifa daayira muxaddamatul xidma di sëriñ Afia sëriñ Abdul Ahad secrétaire général nekk fii ak yeneen kàngam yi fi nekk yépp xëy na Cheikh Mouhamed Sëñ Fallu Mbàkke mi nga xam ne moo jiite organisation dafa sàkku it ñu tënk dara rek ci historique bi ci li waral jataay bi ak fàttali tuuti ci ginnaaw cosaanu liggéey bi xëy na ci minute yu gàtt liggéey bi nag li ko tax a jóg mooy jumaa ji daayira Muxaddamatul Xidma seen slogan bi nga xam ne Serigne Afia Bousso mii di kilifa gi bind na ko muy daayira Muxaddamatul Xidma ànd ngir liggéeyal Serigne Touba ci jumaa ji loolu mooy li ñu boole ànd ngir liggéeyal Serigne Touba ci jumaa ji ci ñaari fànn muy fànn ak cet gi ak fan ak worma ji te ñaari yooyu yëpp bayit bi nga xam ne moom la moom la ñu bindal muy suñu bàkku di suñu siixa te nekk ci Matlabul Fawzayni nga xam ne sëriñ bi. lépp lu war a am ci dëkk bi tënk na ko ci xasida ci xasida googu muy wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanhu bil haadil wa fi soo xoolee bay woowu cet gi ak warma ji ak melokaan yi nga xam ne barab bi war na koo mel yépp da koy yóbbaale loolu mooy mooy mooy liggéey xam ngeen ne jumaay Tuubaa yi ñi ngi ci weeram ci weer wi mooy weeru jumaay Tuubaa daanaka bu fekkee jumaay Tuubaa am na ci sababu baatin tukki bi sëriñ bi tukki woon ci géej gi loolu tamit lu am solo la kon suñ tànnee jataay bii it di ci di ci ndaje ndaje boo xam ne liggéey bi ñu doon liggéey ci at mi yépp tey dañuy gën a fésalaat suñu liggéey muy di gën a dajale suñu jaayante jëmale ko ci mu mu mu tombe ak weeru safar wi loolu it dafay mel ne bu ñu dee dàkk jam nañ ndax sëriñ bi di ko boromam di may jumaa ji xat-xat yi ko fekkoon tar na lool jafe-jafe yi nekkoon tar na lool amutoonug yaatu ci boppam ba noppi nekk ci ay suñu borom boole kook ay nit ñu saay-saay ñoo xam ne seenug saay caay-caay foo ko takk wees na ko di tuxoo ko buusoo ko naan sàngara ko tëgg ci kanamam ak def lépp suturaal bi mu doon suturaal fi mu doon jullee ba sampoon ñeenti bant ngir bëgg bañ muy jaar ci kanamam ak tëgg yaak yaak salte ba soldaar ba nga xam ne lu bon rek la doon wër ngir am ko ci sëriñ bi ñëw buddi bant ya sànni ko dem def ko ci sawukaayam loola sabab soosu noonu te sunu borom bokkoon na ci natt bi mu nattu woon sëriñ bi mooy wëreesu su ko def lu ko metti maanaam lu ñu ko def lu nekk daf cee war dafa war a dellu ci boromam def ko mbégte def ko ak cant loola day doonoon na lu metti lu tiis barabu booy jullee ñu buddi ko ne la da bëgg a yàq suñu soldaar yi fii julli xewu fi ba tax ñu buddi bantee sànni ba noppi dem def ko ci ab sawukaayam ah sëriñ bi moom ka ko doon taxaw te doon ko jàppale di ko rootal ak defal ma ngay xuloo ak tubaab ba buddi bant ya waaye moom mi ngi dellu ci boromam rek jël genn xasida goo xam ne mi ngi ko tënkee rabbana axrajna min hadihi alqaryati zalimi muy raditu anil mawla taxalal lasi rabba fuaadi wa axlaani wa akrim bihi bihi rabba bi mu agsee ci la uktub salaatan masalaman bi alihi wa bi wajhal bihi masjidi rahba ci la ko sunu borom gaaranteel na ko may naa la jumaa ay jumaa yoo xam ne euh, dañ la ko faye ci sa bant yi ñu buddi loolu nag du lu woyof moo tax bi nga xamee ne yi njaareem taxaw na bañ wisit ko ba noppi dana des na ndax Euh, euh, li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy dindi sama ñëgg-ñëggi xol yi mooy bayit wi euh, saaxali xayrillahu fii maa yomba macha xalbiya wa alal janba sama ñëgg-ñëggi xol ji maa woon ci maa yomba de sama ñaari sorol yi dëkkërle moo ko saafara muy jumaay Tuubaa ak jumaay njaareem kon nag jumaa ji dafa doonul rek dafa yëmut ak rek jumaa ji ñu jaamoo yàlla dafa am leneen lu yeneen sabab yoo xam ne bari na yu ci aju yoo xam ne sëriñ bi suñu borom moo ko jagleel kon nag su fekkee ne tànn nañ suñu borom jagleel ñu ba mu koy tabax ba muy tabax jumaa ji bi ko suñu borom mayee mu doon loo xam ne junne yi ak malaayka yi yëpp ñëw nañ sàkk ngir tabax ko mu ne leen dama am njaboot gu ma bëgg ñu barkeelu ci bàyyi leen ñu barkeelu ci loolu am na lu taxoon sëriñ bi doon ñu fàggul loolu mooy njariñ li nekk ci liggéey ci jumaa ji njariñ li nekk ci tabax jumaa ji waaye njariñ li nekk di ñëw di bale ci jumaa ji wala ngay ñëw di fi liggéeyal sëriñ kenn xamut fu mu yem waaye njariñ li mu jural yoonu murit jotaay bi mayul kon nag bi nga xamee ne jumaa ji àgg na Cheikh Amadou Fadel xam ngeen ne tànnoon na ay mag teg leen fi ñuy setal barab bi di sàmm warma ji ñooñu dem ba tële ci atum 1994 yàlla dogal ci tawféexam ak ci ndimbalam ak ci coobareem ak ci njiitul sëriñ Afia mii ak bokk yi nga xam ne ñoo daje woon suñu borom tawféexal leen te sëriñ bi namm waxtu woowa jot ñoo am xalaatu nag ñëw ngir wuutu mag ñooñu ci cet gi ak sàmm warma ji am ndigal ci sëriñ Saliou di atum 1994 boobu ba léegi nag kenn ku nekk xam na ne liggéey bi mi ngi dox mi ngi avancé mi ngi jéggi ay jéego bu baax a baax ci fànn yépp moo xam ci cet gi moo xam ci warma ji ak bépp taxawaay boo xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma mi ngi koy taxaw ngir seenu nosu ak seenu mën a organiser tax na sax yeneen bànqaas ñu leen koy dolli waaye suñu matt nag dëgg-dëgg mooy jumaa ji suñu matt gi nga xam ne sëriñ bi taw feexale nañu ko mooy jumaa kon nag su ngeen ñëwee tab bi ci war ngeen a xam saas boobu nga xam ne bokk nañ ko am ñu am saasu bokk ci ñi nga xam ne dugg nañ ci ñaan gi sëriñ bi di ñaan di ñaanal taw feex ñi nga xam ne ñoo koy liggéey muy waxfir li man banaw binaaha rafi waxfir li man amarahum bihi jami wa li jamihi man ahanahum ala binaiha alladi bi fadlika htala kon ku ci nekk ku nekk li si Abdou Khadir doon wax léegi am nga tawféex am nga taysir waaye am nga tamit ak taxaw seetlu boo war di def toujours ci sa digg ak sa borom sa digg ak sëriñ bi ci ndax lu tax sëriñ bi tànn ma jagleel ma mooy xëy si di ci barab bi ak di taxawu barab bi loolu it sens la ak tawféex kon ku ci nekk ku nekk kenn mënu cee dugal boppam ci wamatu sëriñ bi rek ngay ngay ngay ngay wamatu ba dugg ci ku ci def sa dërëm it dañuy jàpp ne sa coobare bopp coobare sëriñ bi moom la neex ndax sëriñ bi bépp dërëm bu ñu nangu mu dugg ci jumaa ji lu ko neex lay doon ndax nit mën naa am milliard te du ci mën a jëf du ci mën a def kon historique boobu lu mat a bàyyi xel la lu mat a fàttaliku la kon daal li li tax a jóg liggéey bi dëgg dëgg dëgg lii ma tënk léegi ci ñaar ci ñaar yooyu muy sëriñ bi moo bindoon ne dana toll jamono muxaddamatul xidma na sosu ay nit ñoo xam ne su nit jógee ca àll ba di dégg sëriñ bi ak di dégg natt yi ñu ko teg ak tumuranke gi ñu ko tumurankeel su ñëwee gis jumaam ji jubluwu ci woon dong ab tabax bu rafet ak soorool yu gudd déedéet dafa bëggoon ku koy dégg ak di ko yéem soo ñëwee xam ne li ko taxoon a jóg mooy seere ne ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah xam ne suñu borom jaral na ko waaye soo fi duggee nag fekk fi lislaam ju set ju jaamu ju ju ju wóor joo xam ne da fi gis ak nosu akuk cat akuk organisé wu koo xam ne yow mii kat da fi mën a jële loo xam ne da naan ah sëriñ bi ma doon dégg kat bi ma demee ci barabam ba julli fa wala gis muxaddamatul xidma gis soxna yi liggéey ak takku bi nga xam ne ak ak ak njàmbaare gi lii daal danaa ko jël yóbbu ko ci sama dëkk loola mooy tënk rek ci bayit ci bayit wi ñu signaafee bindaloon mooy suñu bàkku muy wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanhu bil haadi rufi kon bokk yi ñu gën a xam liñ am te téye ko am ko te xamoo ko nag ni ko wolof yi di waxee ñàkk ko te bañ koo xam moo ko gën waaye mbir mii day sens la ci ñun mérite la ci ñun kon yàlla ñu ci yàlla defal tawféex ba suñu borom fay ñu te ñu bañ a gis suñu bopp ci liggéey bi te defal ñu xéewal mu sax dàq boo xam ne li ñu bëgg a def lépp danañ ko mën a def xam naa si si àbdu ngir jataay bi ñu ngi tënk kàddu yi foofu si Abdul Ahad kon euh, kàddu gi ci topp rek mooy leeral liggéey bi sëriñ Pape Diop nga xamante si ne liggéey bi moom moo ko doon saytu ànd ko ak mbooloo mu nekkoon commission boo xamante si ñoom ñoo féete ci wàllu liggéey boobu ngir waxtu woo xamante daje nañu rek ñoom ñooy daje seen biir ngir taxawal liggéey boobu moom mooy wax ci seen tur mi ngi àndoon nag mbooloo moo xamante si nii ñii ñu ngi nekk benn commission boo xamante ne commission finance la ñu nekk ci seen biir am ay nit yu jàmbaare soxna yu jàmbaare yoo xam ne ñoom la ko àndaloon biir liggéey bi kon liggéey boobu moom lay leeral ci njiital soxna Mbayang ak soxna Bintu ak mbooleem yi ñu ko soxna yi nag dañoo wax ne ñu ngi sant bu baax a baax jëwri ñi nga xamante àndal liggéey bi ñu gën ñoo fàttali ne ay jëwri yoo xamante si ñoom ñoo jiite liggéey bi ñoom dañ leen nekkal rek ci jëm mbooloo mi ngir deen ko saytul ku ci mel ni soxna Njaxat moom si Abdul Ahad moom day jàmbaar loolu ci liggéey bi ànd ak mbooloo mu takku di ñëw gaaw jot soxna Fadja moom sëriñ Habib di ko jàmbaare ci liggéey bi ak sëriñ soxna Bintu moom sëriñ Habib soxna maam Fatim Mbay ak soxna maam Awa ture moom ñu noonu di soog di ñëw léegi nii moom it di jàmbaare ci liggéey bi ak mboolem nag jëwriñ ñu ko àndal ndax kenn ku ci nekk rek mbooloo lay jë jëlee fu mu dëkk wala ca gox ya nga xamante si ñoom la àndal liggéey bi di ñëw di fii ci barab bi di ko setal kon ñoom it ñu ngi leen sant bu baax di leen jaajëfal di xam ne seen jëwriñ yi nga xamante si ni wala seen ndaw yi nga xamante si ni mooy soxna Bintu ak soxna Mbaye ak ñeneen seen xol sedd na ci ñoom bu baax a baax ñu ngi leen di gën a jaajëfal ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bi kon dañu jox sëriñ Pape Diop mu ko defee moom mu leeral liggéey bi tolluwaay bi ak yi ci war a leeral rek kon buñ ci jébbale bi incha allahu taala kon soxna Mbayang ak soxna Bintu ñu àgg gën a jege jébbal sëriñ liggéey bi bu ko defee mu tontu billahi mina seytaani rajim auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani arrahim maliki middin iyyaka na'budu mustaqim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 Euh, sëriñ Aafi Buso ak suñu kilifa yu tedd yi mu fekkoon di nuyu tamit euh, suñ bokki soxna yi euh, di jiital ci nuyu bi sëñ Muntaxa di ñaan yàlla suñu boroom mu yàgg fi lool te ba lim ma sumba naa la liggéey sëriñ Tuubaa suñu borom bi defal ko ci lu kaw jortam ci barke Seexul Xadiim ah bu ko defee nag ñu fas yéene jublu kon ci liggéey bi nga xay ni moom lañ séqoon ak suñ bokki soxna yi ak góor yàlla yi nga xam ne ñoom lañ bokkaloon nekk ci liggéeyu jumaa ji muy taxawu jumaa ji ci wàllu set gi bokki soxna yi nga xamante ne ñoom lañ bokkaloon liggéey bi muy soxna Bintu Saar Lan Saar ak soxna Mbaye Njum Daaru Xadim ñoom kat membre yooyu ñi nga xam ni ñoo bokk ca Touba ci kanam di ànd di setal jumaa ji sax waxtu samedi wu jot dajale nañ ci addiya ji toll ni ñetti million ak genn wàllu ak ñaar fukki junni maanaam 3 millions 600 francs 600 mille 3 millions 600 mille dajale nañ lañ ko ci ay addiya jëbbal ko Serigne Touba la tamit. mooy dajale nan lu dem ñi ay jumtukaay yén doon euh, nettoyer jumaa ji maanaam bale am nañ ci ñaar téeméeri bale ak juróom fukk ak ñett siwo yi ñuy defee ndox am nañ ci juróom ñeent fukki ba euh, siwo jërëjëf six mille kon euh, addi ji mi ngi toll kon ci trois millions six cent soixante six cent six mille francs 606 000 francs kon si yooyu ñu lim bi am na juróom-ñeent fukki si ak juróom-ñeent madaar bi am nañ ci 198 maanaam euh, téeméeri si yoo téeméeri madaar ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ordre de sewel am nañ ci 40 carton raclette 301 muy ñetti téeméeri raclette ak benn charpier 322 am nañ ci kon ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ak un sac omo 10 kilos palaat ndékkikaay am nañ ci ñetti téeméer ak kuddi lekkaay mooy ñetti téeméer loolu lan bos yéen woon leeral fii ci jitaay bi xam ni suñ mbokki soxna yi ñooy ñi ko fi jaayante ak mbokki góor yàlla yi nga xam ne ñoom lan àndal liggéey bi ñoo ko fi jaayante defal ko jébbal ko Serigne Touba kon bu ko defee soxna Mbayang Jum ak yaa Bintu Saari man ngeen a jige si jox jébbal addiya ji sëriñ bi sëriñ bi nag ñoo ngi sàkku ci yow nga ñaanal suñu mbokki jullit yi nga xayante ni si ñoo ànd na ñoom liggéey bi daaw te ren ji suñu borom fekk loowu la waat jitaay bii ay góor yàlla bàyyi koo nañ fi ñoo xam ñoo ànd na ñoom liggéey bi ay soxna bàyyi koo nañ fi ñoo xam ne ñoo ànd na ñoom liggéey bi te ñu ci aman pas-pas lan mu nungoon a liggéey Sëriñ Tuubaa ñu bëgg Sëriñ Tuubaa ñooñu ñëpp suñu boroom jël na leen ci coobareem ñoo ngi ñaan yàlla suñu boroom xare leen ajjana bi xayri hisaabin barke Seexul Xadim waaye sëriñ bi ñoo ngi sàkk nga dolli leen ñaan ba tey ñoo ngi sàkku ñaan ci suñu jëmm yi ak soxna yi ñu àndal ak góor yàlla yi nga dolli leen la ñaanal ak wér ak fekk ak tal ak lii ñu yéene Sëriñ Tuubaa saa suñu xëyee seen yéene gën di kaw ndax am nañ yéene am na pas-pas ku si nekk fa nga dëkk sori na waaye dañuy jaayante paas ñëw jaayante di joxe addiya soxna maam Awa Touré ñaata la hmm, d'accord kon mi ngi egg ci addiya ji kon toll na ci 3 millions 612 mille francs 3 millions 612 mille francs maanaam ñetti millions ak genn wàll ak ñaar fukk ak ñaar ak ñeenti téeméer noonu la addiya ji toll kon jërëjëfe Serigne Touba Serigne Touba moom mel noonu moom teem dina rek gàccal na démbam noo ngi sant bu baax di wàcc foofu suñuy kàddu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di ñaan yàlla suñu borom yàlla nañ ko fekkee ay ati ati at ci barke Cheikhul Khadim kon soxna Bintu Sarr ak yàmbaay man ngeen a jege si jébbal sëriñ bi addiya ji wasalaamu aleykum wa

sëñ Touba ñu ngi xeeb lool ñu luñ ci joxe ren rek. su déwénee ñu joxe lu ko ëpp. wax dëgg suñu yéene weesu na lii. suñu sañoon ju may sëñ Bàmba ji dañuy buub rek di ñëw di xëpp. waaye nag ñu ngi sàkku ñaan bu baax. ngeen ñaanal ñu ba suñu yéene ci liggéey bi. Mm-hmm. yàlla eggaleel ñu ko. daje jee ngërëmal Serigne Touba di sant mbooloo mi nga xam ne moom la ñu àndal mépp ak fu mu waaye mën a jóge rek ci gox yi fas ñëw di indi àddee bale yi morso yi ordre sewel yi omo yi àddee ji fu ne la waaye di jóge ci Touba ak li génn Touba nag fajaru ñëw jiituñu ci jumaa ji soo ñëwee yow da nga naan sax man mi dëkk Touba su ma xoolee ñi génn dëkk bi def liggéey bi bàyyi ma ndax dafa mel

alhamdulilahi rabbil alamin jot li ma tan na sa wax kenn ko xam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dama ko jox na mu gën leer waaw sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum yi fi teew mboolem mbokki taalibe yi fi teew ñu leen di nuyu ci turu ak Cheikh Mouhamadul ñoo ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa su mën ko kàttan yokk aw fanam ba lépp lu mu def ko moom. yàlla na borom tëbb ko kàttan te yokk aw fanam ba lépp lu mu yéene mu def ko te nu ànd kook moom. ndax lépp lu waay di def ci ndigalam nga koy defee. ndax lépp lu waaye di def ci ndigalam nga koy defee. kon nag bu ñuy sant ci turam la ñuy sante. kon nag bu ñuy sant ci aw turam la ñuy sante. ak mboolem turu ñi nga xam ne ñoom lañ seqal daayira bi yëpp. ak mboolem turu ñi nga xam ne ñoom lañ seqal dayre bi yëpp. di leen sant bu baax te di leen ziyaare. di leen sant bu baax te di leen ziyaara. di seere di seere bu baax seen i jëf. di seere bu baax seen i jëf. di wax ne lii du kiimaan ci yoon ci lislaam. di wax kiimaan ci lislaam. ndax lislaam ba mu sosoo ba léegi. ndax lislaam ba mu sosoo ba léegi. jigéen ñi mosuñoo dañ ci di def ak njambaar jigéen mosuñoo dañ ci def di ci def ak njàmbaar. jàng taarixu lislaam. ku jàng taarixu lislaam. da nga ci gis jàmbaare lool. da ci gis jigéen ñu jàmbaare lool. góor yàlla yi àndoon ak Serigne Touba. lañu àndaloon yoo xam ne. ay soxna lañu àndaloon yoo xam ne. ay saadixaat lañu yoo xam ne. ay saadixaat lañu yoo xam ne. nañ doon liggéeyal sëriñ bi ñoom. nañ doon liggéeyal sëriñ bi ñoom. nañ leen doon liggéeyal ñoom itam. noonu lañ ko doon liggéeyal ñoom itam. kon jigéen. kon jigéen. njàmbaaram ci lislaam. njàmbaaram ci lislaam. yàgg na lool. yàgg na lool. rawatina nag barab bi ñuy wax muy jumaay rawatina nag barab bii ñuy waxee tey muy jumaay Tuubaa. moom jigéen def na fi njàmbaar goo xam ne. moom jigéen def na fi njàmbaar goo xam ne. bari na fi jigéen lool. bari na fi lool jigéen ñi mën góor. ku xam taarixu liggéey bi da nga xam loolu. ku xam taarixu liggéeyu jumaa ji da nga xam loolu. te euh, li tax. te li tax. liggéey bi doon liggéeyu jigéen. liggéey bi doon liggéeyu jigéen. liggéeyu góor lépp liggéeyu góor la. lépp liggéeyu góor la. yanu saako ciment ci gaar bu mag. saako ciment ci gaar bu mag. yanu fa feer. yanu fa feer. yanu fa bidon jëlee ay suuf ca kam kam yi ca kër ñang jëlee suuf ca kam yi ca kër ñang loolu dara du ci liggéeyu jigéen loolu dara du ci liggéeyu jigéen du ci liggéeyu góor dara du ci liggéey góor te jigéen ñoo ci man jigéen ñoo dara du ci liggéeyu jigéen te ji te jigéen ñi ñoo ci mënoon góor ñi loolu ku xam liggéey jumaa ji taarixu jumaa ji da xam loolu loolu ku xam liggéey jumaa ji xam taarixu jumaa ji da xam loolu ñu doon yàgg doon ay jàmbaar yoo xam ne ñu yàgg doon ay jàmbaar yoo xam ne ku ne dégg na ma ngi daan soññe di wax ne waa leen kumba waa leen góor ku ne dégg na mag ñi daan soññee dañ daan wax naan waaw leen kumba waaw leen góor. booba jigéen ñi jiitu. booba jigéen ñi ñoo jiitu. ndax dañoo gënoon a jàmbaare moo tax ñu daan wax waaw leen kumba waaw leen góor di wax waaw leen kumba ba noppi door cee teg waaw leen góor. ñooñee nag. ñooñee nag. am na ci ñoo xam ne ñoo leen jur yéen ñii. am na ci ñoo xam ne ñoo jur seen seen i waajur. am na ci ñoo xam ne ñoo jur seen i waajur. waaye alhamdulilah rabbil aalamiina. yéen itam mujjewu leen poso bi mu réer. ku ne xam na ne. ku ne xam na ne. bu ngeen fekke woon njëlbeenug lislaam. bu ngeen fekke woon njëlbeenug lislaam. wane ngeen wane ngeen fii njàmbaar goo xam ne. wane ngeen fii goo xam ne. bu góor ñi gàddu jaasi di xeex. bu góor ñi gàddu jaasi di xeex. kenn du leen ci kenn du leen ci man. bu ngeen fekkoon jamonoy Serigne Touba. bu ngeen fekkoon jamonoy Serigne Touba. ànd ak góor yàlla yooyee. ànd ak góor yàlla yooyee. kenn du leen ci kenn du leen ci man. wane ngeen ko fii. ndax wane ngeen wane ngeen ko fii. njàmbaar goo xam ne. muy njàmbaar goo xam ne. ndax tabax gi kat noppi na. ndax tabax gi kat noppi na. waaye liggéey bi du jeex. ku ne xam ne ne li ngeen ci fi def boo demee ca Makka ak Madina nga xam amuñu ñu mel ni ñu nga xam ne amuñu ñu mel ni yéen ay fonctionnaire lañ am weer wu dee ay millions yu bari lañ ciy fay yéen nag addiya Sëñ Tuubaa ngeen koy def ndax ñoom barab yu tedd lañ de waaye amuñu li sëriñ bi am. xidma xidma liggéey ngir yàlla. liggéey ngir yàlla. sëñ Touba la ko yàlla fayee. moo tax yéen ñii. ngeen di liggéey. ngeen di liggéey. sakku leen ci lu may ngërëmul sëriñ Touba. la chaque ne am ngeen ko. ndax sëriñ Touba kat. ndax sëriñ Touba kat. amul tool yu ñu ko daan bayal. amul tool amul tool yu ñu ko daan bayal. mag ñi nekkoon ak moom itam. mag ñi nekkoon ak moom itam. bale. bale ak root yu mel noonu rek lañ ko daan defal. lu ngërëm li rëy rëy. foofu lañ ko jëlee woon ci loolu ngeen nekk. ci loolu ngeen nekk. kon nag ñu ngi leen di sant bu baax. kon nag ñu ngi leen di sant bu baax. di leen gërëm bu baax. di seere seen jëf bu baax. ndax li nga xam di leen ñaanal itam nag. di leen ñaanal itam nag. suñu borom defal leen ak mucc. suñu borom defal leen ak mucc. defal leen ak wér. defal leen ak yor. ndax yoonu murit damay wax ni. ndax yoonu murit damay wax ni. yoonu ñaq ak ñuqi la. yoonu ñaq ak ñuqi la. feeñal ngeen ko fii léegi. ngeen ko fii léegi. ndax ndax jamono ñe yéen a ngi tuur seen ñaq fii ci jumaa ji ñuqi ngeen fii lim bu rëy joxe ko àddee Sëriñ Tuubaa kon ñaq ak ñuqi moom ngeen boole yàlla na leen suñu borom defal ak wér ba ngeen mën a ñaq defal leen ay xéewal ba ngeen mën a ñuqi te Sëriñ Tuubaa nangu lépp barkeel njaboot gi may leen fan yu gudd ku nekk la nga yéene sa bopp yéene ko sa njaboot suñu borom defal la ko. suñu borom defal la ko. lu kawe sa njort. ci barkeb Serigne Touba. sant nag. dafa mënta weesu sant. te it ñun loolu lañ ci man ñu yëkkat suñuy kàddu. jottali suñu cant. waaye borom liggéey bi moom. mu Cheikhul Khadim. nee na leen jàkk. ku ne xam ne liggéey liggéey. ku ne xam ne Pastef ba nga ca am. te Sëñ Touba kenn gën koo gore. macha allah bu leen fayee. da ngeen rus kuy jaay njàmbaar ba ak sëñ Tuubaa wala ngay jaay ngor ba ak sëñ Tuubaa da nga xam ne agsi nga ci jàmbaar ab si nga ci gor goo xam ne du wor te li ñuy fay lépp am na ko sëriñ Abibu Mbàkke daf ko nettali ne ko di sëñ bi door a sanc fii nekk fekk góor yàlla yi daje fe góor yàlla yi nekk fe ak góor yàlla yi àll bi metti lool àll bi lool moom jaara dafee ñëw sëñ Mor moom soxna jaara dafee ñëw xamuñu waxtu wuñ fi ñëw nag xamuñu waxtu wuñ fi ñëw nag fajar daa jot rek fajar daa jot rek mu noddu mu noddu ñu xam ne ñëw na ñëw na biñ jullee ba noppi biñ ba noppi yéen ñi nga xam ne mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak Ahmadu mii ñëw ci gott bii xam leen ne xam leen ne. dajalewu leen dajalewu leen dajalewu leen fi ba noppi. leen ba noppi. wuti lu leen fayee. di wuti lim leen fayee. daa am daa dajale lim leen di fayee ba noppi. daa dajale lim leen di ba noppi. door leen fee dajale. kon nag nañu sant ñëpp. di sant di gërëm ñëpp. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Fallou mi jiite liggéey bi nee na waa leen kumba jooju nga xam ne jigéen ñee ko moom. ajjuma ji nga xam ne góor ñi ñoo ko moomoon sax. daan ko liggéey jigéen ñi ñu ngi koy bëgg a nangu ci ñoom ngir seen jàmbaare kon nag jërë ngeen jëf jë jërëjëf jërëjëf macha allah sëriñ bi ñi ngi gën a sant bu baax a baax di gën a am yaakaar di gën a am xel mu dal bu baax a baax di xam ne liggéey bi moom sëriñ bi nangu na ko kon nag ñi ngi sant ñëpp rek ci turu sëriñ Fallou Mbacke mi nga xamante si ni moom moo jiite woon liggéey bi. ak mboolem rek ñi ngi ko àndaloon ñëpp rek ci soxna yi ak góor ñi soxna aramak ak soxna ndikko ak soxna maam jaara jaw ak ñëpp rek xam naa waxtu tusbaar dafay xaw a jot te sëñ bi jataay bi xaw a yàgg loolu ci moom xam naa bëggoon nañu jox soxna am ñu ci sànni kàddu waaye nag jataay bi nag moom moo moo ko xaw a tënku sëñ bi laal sant na ñëpp gërëm na ñëpp tey gis na lépp euh, mboolem ñi ànd ak soxna bintu laal ñu ngi leen di gën a sant bu baax ci turu soxna bintu ñi ànd soxna mbayang tamit noonu mbooleem tur yi nga xamante si mooy kilifa yi tamit sëñ Abdou Lahad dana ko lim léegi. waaw sëriñ bi dafa wax ne it ñu xëy na kàddu yi da ak soriwaay bi nga xam ne nit ñi sori woon nañ ko ndax seen pasteef bu rëy moo tax waaye dañ koy daaneele ci sant kilifa yi nga xam ne teew nañ fi ci jataay bi mën nañ cee tudd tàmbale ci sëriñ Mourtada mii toog ci wetam teew fii teewal fii magam di sëriñ Moustapha Sarr moom sëriñ Basirou Sarr jaamu sëriñ Touba. di rakk ci soxna Bintu waaye di ko jàmbaare ci liggéey bi te bëgg lool nag liggéey bi moom itam am ci pasteef lool am ci yéene lool sëriñ bi sëriñ bi nee mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal euh, waxtu wi daaw sëriñ Moustapha moo fi teewoon ajjuma ji weesu rek ñëwoon na julli si xëy na tey dafa jàpp wala mu génn moo tax teew fi waaye ku ne xam ne pasteefam ak jàppale gum jàppale soxna Bintu ci liggéey bi naka noonu sëriñ Cheikhouna Mbacké moom sëriñ Saliou moom sëriñ Abdou di kilifa gu woyof di kilifa bu baax di kilifa gu nangoo sonn ci liggéeyub sëriñ Touba bi yàlla def xolam itam bëgg lool jumaa ji mu fonk ko lool waxtu wu ne mu di ko fi jullee si këram sori na lool waaye dafay toog ba waxtu julli waxtu yépp door delluwaat këram kooku kon jumaa ji ci boppam da cee am cër boo xam ne suñ borom moo ko ci defal ak cofeelam nag moom ci jumaa ji kon ñi koy sant bu baax a baax di ko gërëm te lépp lu mu gis ne lu mën a jëme kanam liggéey bi la bu bu doon xaaju guddi it dana la woo téléphone waxtaan ceeg yow loolu ñu ngi koy seereel ñëpp di xam ne ne ku fonk liggéey bi la ku ci am yéene la ku ci am taxawaay la buñ ko dee gis ak bu buñ ko dul gis waxtu wu ne mu ngi xool lu baax waxtu wu mi ngi xool lu lu lu mu jàpp ne lii war naa dañ dana ci taxaw ba mu dañ lu mu jàpp ne war naa yokk dana ci taxaw ba mu yokk moom Serigne naa kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax waaye di la gërëm it ci àndin wu rafet bi nga xam ne moom nga ànd ak soxna yi ci wàllu liggéey bi muy fii muy Touba ca kanam muy feneen fu mu mën a doon ñu ngi lay ñu ngi lay ci sant bu baax ci turu daayiratu Muxaddamatul Xidma di la ci gërëm te di la yóbbante ak cant itam ci mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ca kanam di suñuy bokk di suñuy xarit di suñuy wëllëre ñu seq liggéey bi te rafetal ko lool sant itam suñu mbokk mii nga xam ne moom daanaka sant ko sax sant suñu bopp la muy Cheikh Abdoul Khadir mii ndax ñoo bokk lépp waaye bu ñu fi tegee nag suñu xel du mën a ñàkk a dem ci sëriñ alxaaji lu Mbàkke mi nga xam ne moo nekkoon magam te liggéey bii tàmbali woon ci ay jamonoom mu sawaroon ci lool lii ma wax ci sëriñ Cheikhouna mooy li wala baroon ci sëñ Fàllu sëñ Fàllu daana nekk sax jumaada guddi xaaji guddi toog ba min wala une heure mu di la woo di wax ak yow lu jëm ci liggéey bi di la ci soñju di ko rafetlu di ci bég taxawaay yu mu ci def rek fu mu mën a nekk dana ci woote joxe ci xalaatam kon suñ demee ba bésu tey bii suñ borom jël ko duñ ko mën a ñàkk a ci bis bi di ko ñaanal suñu borom dolli ko yërmande dolli ko njëggal te teg loxoom ci njabootam yéen it ñu di leen sant ndax fa mu leen tegoon rek foofa ngeen tegu bari ngeen si keroog ba ñu teewee ca Daarul Xadim ci kanamu Soxna Mbaye mi la lam leen yónni woon ngeen wax ko ci kanamam bi mu leen wonee ginnaaw it noona rek ngeen doxe kon nag jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant bu baax ci turu daayira Muqaddamatul Xidma bépp di leen gërëm tubaa ci kanam mu ngi nii di door a agsi moom itam waaye cant gi ñu yóbbante woon sëñ Seexu naa rek yaakaar naa duggaale na ci biir euh, benn la rek benn la rek ñoom di sant itam imam sëriñ Daaw Gasama mii toog sëriñ sëriñ Sàmbaat sëriñ Sàmba Aan mii toog ak kilifa yi nga xam ne yépp ñoo ànd ak ñoom waaye ñuy sant itam soxna yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ñoom ñëpp ànd ak soxna Bintu ak soxna Mbayang ñu mën caa ràññee soxna Njaxat Mbàkke moom sëñ Abdul ñu di ko wax soxna Njaxat Baye Fall mi ngi nii toog waaye wax nañ ma ne soxna Njaxat moom sëriñ Seex Abi itam moom sëriñ Abdul Ahad moom itam bokk na ci liggéey bi te am ci yéene lool am ci pas-pas lool di sant soxna Fatou Dia Mbàkke moom sëriñ Abibu waaye di sant soxna Bintu Mbàkke moom sëriñ Abibu di ñoo xam ne wax dëgg yàlla seen yitte ci liggéey bi ak seen taxawaay ci liggéey bi waxtu wu nekk day gën a soññ ñëpp ndax wax dëgg yàlla ay kilifa lañu ci ñi jiite liggéey bi yëpp ay maam lañu waaye teewul nag loolu lépp gisuñ ko liñ gis rek mooy liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba rek lañ jiite seen kanam ba fuñ fu ñu yaakaar ngërëm Serigne Touba rek ña ngi fay def teg seenu tànk di fa def seen jëf di fa di ñaq ak ñoq bii Serigne bi waxoon. ñu nekk ca biir waaye ñuy santit soxna may mun a moom Cheikh mu Muntaqa moom it di koo xam ne waxtu ni mu ni mu farloo ci ànd yéen ci liggéey bii noonu it la farloo ci lépp lu mu gis lu baax ku mu gis lu baax dana ko jéem a lugat indi ko ci jumaa ji fu mu ko mën a gis rek bu dajee ak bés bu ñu war a liggéey si mu ànd ak ñoom liggéey si bu dajee ak bés bu ñu ñooña wala loola indi ko jébbal ko ci lu mu amit indi lu mu amit indi kon nag ñi ngi koy seeral ak cantam moom itam naka noonu soxna maam Marème Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem ñi ànd ak soxna Bintu Sarr ak mboolem ñi ànd ak soxna Mbayang Jum ak mboolem ñu ànd ak soxna maam Faati Mbay moom Serigne Abibu moom Cheikh Mouhamadul Fadil waaye nag mënuñoo ñàkk a cant ñaari jur yi nga xam ne dañoo nekk ci biir liggéey bi te di jàmbaar lool muy soxna maam Awa Touré moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacke. ak soxna Ami Sylla moom Serigne Souhaïbou Mbacké te ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax tuddoon na ko ñoom ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax tey rafet rafetlu seen liggéey di wax ne su su fekkonte ne dañu mën a wax ne wàcc jot na ñu mën a wax ne ñu wax dëgg yàlla mënoon nañoo wàcc ndax liggéeyal nañu kilifa yoo xam ne wax dëgg yàlla bu lu baax doon doy war a doy ci ñoom waaye lu baax nag daf dul doy moo tax ñu gën a góor gën a takkaat seen digg jiitu ci kanamu seen doom yi ak seen sët yi ànd ak ñoom liggéey bi di xëyandoo ak ñoom di wàccandoo ak ñoom te fekk xëyoon nañ démb loolu rek war naa doon sañee bu rëy kon ci kàddu yooyu la ñuy di sant ñëpp di gërëm ñëpp di séentuwaat ñëpp na gën a déwén nag di ñaan ñu teewaat kenn bañ a manqué. xanaa li ma ci dolli nag. sëñ xanaa li ci dolli nag. moo ñu bañ xatal yéen yi. moo xatal yéen. am ñoo xam ne. seeni maam dañoo liggéeyal Serigne Touba. liggéey mën naa ñàkk ci ñoom. ndax dañ leen liggéeyaale. waaye am na ci ñoo xam ne nag. dañoo liggéeyal seen bopp. dañuy liggéeyal seen bopp. liggéeyal seen i maam. liggéeyal seen i maam. nañ ci fasaale waajur yi bu baax a baax. nañ ci fasaale waajur yi bu baax a baax. fekkewuñu woon Serigne Touba. ñi nga xam ne fekkewuñu woon Serigne Touba. maam liggéeyalu ko amuñu woon tawfeex seen maam di ko liggéeyal. amuñu woon tawfeex nit seen maam daan ko liggéeyal. ñii mu jàkkaar lool nag ñu ci bari yoon wee leen jur yoon wee leen jur seen maam liggéeyal na Sëriñ Tuubaa seen maam liggéeyal na Sëriñ Tuubaa leer guy dox lañu leer guy dox lañu am ci ñoo xam ne nag am ci ñoo xam ne ci ñoom la tàmbalee ci ñoom la tàmbalee buñ fàtte maam ya buñ fàtte maam ya ndax liggéeyal Sëriñ Tuubaa lu ne xaj na ci ndax liggéeyal Sëriñ Tuubaa lu ne xaj na ci nañ fasaale ñëpp nañ fasaale ñëpp maam ya ba ci aadama maam ya ba xaw jot boo ko defee ñu ngi sant tamit sëriñ Ba ni ñu ko waxee sëriñ Seex naa forage rek ngi koy sant liggéey bi waaye tool rek